xam ne tey jii ñoom ñoo leen bu naan bañ démb suñ bañee tey suñ nangoo tey seeni i pexe dafa jubul mais ñoom ñoo condamné woon Karim Wade man lool rek moo ma jaaxal ñoo ko exile ñoo ko daj ñoo ñoo ko def lépp loo xam ne lu leen metti tey c'est-à-dire dëgg su jotee dañ koy wax yéen dama foog nii da ngeen a dem ba ci biir xamatu leen fu ngeen jëm ngeen bëgg ñu reporter élection yi mais xanaa demu leen entraînement xam nga compétition soo koy def il faut que nga entraîner man sama candidat yéen sa yéen a ngi yéen a ngi lali pexe Aliou Mamadou Dia dégg naa sax yéen a ngi lali pexe pour ñu wecc leen ko yéen yéen waa Bennoo parce que xam ngeen ni candidat la boo xam ni tey ku ko am ku nekk da ngay gagné incha allah nekk cinquième président waaye fi mbir mi du loolu mbir mi du loolu man li may woo sama mbokki PDS yi mooy ñëw leen ñu ànd ànd ak Aliou Mamadou Dia bi nga xam ni Nations Unies bi nga xam ni Nations Unies te ne ko pendant pendant dix-huit ans di liggéey ak moom mu nekk candidat boo xam ni nee na su ma ñëwee su ma ñëwee dootuma siéger yi dootuma xam ngeen li may wax da ngeen foog ne ay caaxaan la conseil supérieur de la magistrature Aliou Mamadou Dia nee na man su ma ñëwee duma ko siéger damay bàyyi ñi nga xam ni mooy justice mu am indépendance am euh, assemblée nationale am indépendance am mais ñun ku ne xam na ni tey li ngeen di wax di ko xeex naan dañoo bëgg mu leer mais ñun ñii fii la ñu jël maak Mamadou Niang sama collègue yóbbu ñu prison te loolu yéen assemblée nationale yéen yéen a seetaan lu mel noonu léegi nag léegi mu leen a ñëw ba fii tey mu te nag am na ku fi dugal ku léegi te xam naa ne du mujj fenn am na ku fi jël ku léegi suñu président Birame Souleye jël na fi ku léegi te du mujj fenn léegi nag le problème en est que problème en est yéen man li ma leen di ñaan mooy wax dëgg yàlla ñëw leen rek ñu dem élection man loolu rek laa leen di ñaan parce que su ngeen taxawee fii naan naa dañuy reporter élection yi wax dëgg yàlla loolu gàcce la yéen comme pare ngeen kay pare leen ñu dem campagne beneen bi ci des mooy man ñépp ñi nga xam ne ñooy magistrat yi ñoom yàgg ngeen taxaw fii di leen leen tàgg naan magistrat yi fii force reste à la dugg na fii génn na fii tey nag su ngeen ñëwee yow seeni i cours di ko dóor magistrat yi vraiment loolu lu ñu jaaxal la man yàlla xam na ni démb démb fii bi ngeen commencé di dal ci magistrat yi xool naa xool fenêtre bu ma mën a jaar fii mais gisuma ko mais sinon kon dama doon tëb parce que am na loo xam ni xel mënu koo xalaat ngeen toog fii di tagg magistrat yi chaque jour ngeen leen di tagg ñuy ànd ak yéen ngeen naan magistrat magistrat mais dem ba mu leer ni leen su ngeen demee élection ngeen ñàkk ngeen taxaw fii di yekk magistrat yi du n'importe quoi nañ waxante dëgg te li ma leen di wax nag bët yi ngeen may xool xam ngeen ni li ma leen wax ay dëgg yu leer la ñëw leen ñëw leen ñu dem élection libre et transparente waa wàllu yi ñëw leen ñu ànd ak yéen ñun yàgg na leen a soutenir le mouvement Dahiratoul Moustarchidine wa Moustarchidaty soutenir na PDS ba tey sëriñ Moustapha Sy Serigne Moustapha Sy Ablaye Wade moo tax mu dugg prison kon ñun lu ngeen di xeex dañ leen ciy jàppale bu leen topp nag ñoo xam ni bu ngeen juutoo seen bopp toj ànd boo xam ni ñii ngeen nar a àndal fexe leen ba leen leen jiitu te ñoom fi mu dool nii li ñuy xeex lépp seen intérêt lañ lañ ci jug mais xam nañ ni yéen ñii li ngeen dëgg amalu leen njariñ ñoom mais dañuy xool rek nun ci prox ndoloo ba reporter élection yi bu ko defee ñu naan c'est-à-dire c'est-à-dire ñëw leen ñu dem sëgg bëre bëgg bëgg bëre wax ba suñ secrétaire général waxoon Cheikh Tidiane Youm bëgg bëre bëre bañ bëre bëre wa ilañ xaar